18 morts 18 morts dina ci am. xalu mm. wala xawta illa billah. te ku ko wàññi. Mm. boo seetloo ñi ko wàññi def nañ ko ci journée sax boo ko mm. wàññiwee. am na ñu ne 15 la. am na tamit koo xamante ni ci campagne la nekkoon. deele ñetti nit ci otoom. soo ko boolee 15 bi nekk ñaata. 18. ah léegi kon ban ngay mayewaat parce que man dégg naa ne danga garaaw mais fu mu doo ñëw toog nii rek dafa yomb daal. <laughs> alaaji ñëw toog nii rek non man dama bëgg nga wax bagage wala boog nga seetal alaaji wala boog ma oo oh, ñoom Pape Dawda ak ñooñu nga seetal leen. wala ñoom Mado. Euh, gis nga gis nga dëggal <laughs> gis nga euh. Euh, xam nga dafa am loo xëy lii. Mm. ki ko mën dëgg. Mm. mbóot lay doon boo xëy am na da koy dëxëñ. dëgg la du génn koo gis ñu daa bari wax am na lu mu dul wax. dëgg la. nag. Mm. te gis nga seet. Mm. ñi ci ëpp te ragal ñeme yàlla. Mm. ñoo yàqal ñi ragal yàlla. Mm-hmm. yàqaluñ leen sax ndax ñi ragal yàlla moom saa bu ñu xëyee. am na fu ñuy teg seen tànk am fu ñu dul teg seen tànk. dëgg la laaj. dama la wax toujours la. lim lim yépp ni dañ ciy seet. dama d'accord ak moom. ci yooyu. bi ko ñetteel muy dàkk gi mu wax kebe. léegi la rek. Mm. waaye buur yu jëkk ya. Mm. ñi woon ay sax ay buur la ndax buur benn la muy yàlla. Mm. ak ñi nga xam ni dénkoom dañ daan def bal du la dugg. dañ daan liggéey dàq googu laxas ko ci ginaar ak séq sox ak fetal tiire ko te du dem. yooyu am na. waaye ki ragal yàlla. la mu man doo ko def loo ci lu bon. dëgg la ndax da dem ci ab sëriñ. ak xatar. defal ma nangam. léegi te la mu lay def loo jëmul kër. te bàkkaara nga ca. nga wën biti ko. ba xelam del si def loo xay lii. bu ca duggoon am girawaay wax naa la ni mbéy mi daal di tey lu doy waar. man sama xarit la yàlla na ko yàlla yërëm ma nga ca barsax da daan ñëw. amiin yaa rabbal benn commissaire tooñ ko tëj ko. ka demoon di ñaan. doomam sa xarit la. Mm. ndax moom ma nga central. kooka daf ni dani dani euh, sa góor ga mm. bu ma ñaanal bàyyi ma moom mm. tëñ na ma am naa fi une semaine te ma ma tooñ mm. waaye waat na ma bu génnee ndakaaru accident moom kañ tëj bañ ko libéré ba bàyyi ko Casamance la dem xawma lu lu muti Casamance waaye gis nga commissaire bi diggante mbuur ak campement ñetti doom ak soxnaam fa inna lillahi wa inna ilayhi te ba mu ko tëjee da ko di te nga ma une semaine gisuma sama waa kër. Hmm? waaye doo génn Ndakaaru dafa am ñoo xay diggéen lu ban dëgg lañ gën a mën lu baax. Hmm. te sax borom kiiraay dëgg. Hmm. balaa xam-xamam moo mat dëgg. foo mu jaar ci natt yu mel ni kaso. kaso bii ngay gis nii. ay wàlliw rek a fa nekk. dëgg la ay yàlla barkeel. dëgg te ki yàlla denk dëgg. du jóg ci jafe-jafe ak natt. dëgg la dëgg la. ki yàlla denk dëgg. du jóg ci jafe-jafe ak nattu. mais sëñ Adi sànq maa ngi yëkkati woon lenn loo xamante ne ne euh, lu doy waar loo xam ne setkat yi ñu ngi koy def. Mhm. parce que su fekkente ne par exemple damay jël misaal kenn réer la na dara nga dem ci seetkat mu ne la diwoo ko sàcc. loolu ñu ci bëri ci seetkat yi dañ koy def di ci tas ay kër di ci tas ay askan di ci tas ay waaso loolu loolu loolu yow noo ko gisee ak ndax sa seetu boobu ku sàcc dafa ñëw sëgg nga wan ko ah, kanamu seet sàcc ba loolu la ah. lu ci nekk dafa am ñu koy seetee mm. bu dee dañoo toog ci mbooloo mm. am lu fa réer mm. ki réer la ñëw ne la damaa réer le ca saasa ci biij bi après coow bi maanaam bi mu laajtee laajte gisul mu ñëw ne la ma réer le ci mbooloo la toogoon mu réer bu ñëwee ci yow yow dangay seet seet boo xam te ne ànd ak secret. Mm. mooy da seet seet seet seet ba xam tuuru kan moo ko jël. Mm. nga ne ko ñi nga toogandooloon ñoom ñëpp. Mm-hmm. nañu ñëw. Mm-hmm. bu ñoo ñëpp ñëwee ba yegg ci sa kër. Mm. nga ne leen lii nga teg li nga xam te ne moom ngay gisaane. moo xam seetu la. wala am na ci loo xam ni ci ndox nga koy def. bu dugalee loxom ci ndox bi dootul génn la ñu géndal su dugalee ndoxam ci ndox bi dootul génn. Euh, ci kenn ci ñoom. ki ka jël nga leen léegi. na kenn par kenn dugal loxoom wa illaa hmm. dem leen ngeen toog waxtaan ba pare. Hmm. su ngeen mënee waxtaan. Hmm. ndax ki jël de. su dugalee loxoom fii. te bañ ko. mën na ci jóge am ci loo xam te dina ko dal ba su amul sens dina ko yóbbu. léegi dem na ngeen waxtaan seen biir. bu dee ki jël mën naa yollee ko nang ci sutura. mu dem jox borom. baax na. Mm. ñoom dañuy génn léegi xam nga bu ñu génnee. Mm. ki jël bu dee amul fit. Mm. dana soppiwaat xelam. attan naa woo ki nga xam te ni moom la jël alalam. ndànk mais loolu sëñ loolu à peu ko ko non non dafay am. am na ah. sëriñ su koy def. waaw waaw maanaam mbiru sàcc. loolu à peu près loolu da tiital ndaw see. non mbirum sàcc. ci place bu amee. balaa nga cee def réaction yow sëriñ bi da nga waxtaan ak ñoom ci xel ba pare déjà man jàpp naa ne jigéen bu am fulla doo ko ni ne du toog wóolu boppam pay ngeen ne yéen ñëpp ñu toogoon ci xew bi rangale leen ngeen dem ci sëriñ loolu yëfu yabaate la am na beneen yoon boo mën a jaar mm. ndax lépp ay bunt la mm. beneen yoon dinga mën a jaar xam nga mooy lan mm. mën nga liggéeyal nit ki màndarga boo xam te ni maanaam ki jël dina ko indi mun nga koo wax nag ne ko sa mbir ñu ngi ko jël mu ngi tegu ci place nangam euh, ci barab nangam jaayaguñ ko wala kii wag mën nga ko jox mais bu ko teel a jox tuur mm-hmm. maanaam tur bi nay mujjee toujours. Mm. su demee ba sës ba mu wóor ne la ki ko jël bañ na koo génnee. Mm. sarax rek nga koy digtal defal sarax bi mm. balaa jant soo dina am loxo béy bu ko dal boo xam ni balaa jant so di nga ko dina dina ko dina ko jàmmat wala biir buy daw dina ko dal boo xam te ni tant que indiwul bagage biir bu du arrêté. <laughs> ah nga léegi kooku yow jaxase woo kër léegi ki sàcc. bu biiram dawee. yéen daw daw ba ngoon jot. ñu yóbbu hôpital mm. gisuñ ci dara mm. ñu yóbbu ko ci sëriñ sëriñ bi seet mm. sëriñ bi lan lay wax dañ koo liggéey am na ko mu tooñ ba ñu def ko lii bu ñu nee am na ku mu tooñ rek moom xelam dana dem ci nii kon est-ce que du ko ma jël alalam moo tax xelam moo tax li ko dal dal ko te kon dina retourner si ci ki mu jël alalam wax ko ko bu keroogee nag ki mu jël alalam ci yow lay retourner yow sëriñ bi ñëw nga jox ko lu tax loolu arrêté waaye mais maanaam teela a joxe tur ci toujours day jaxase kër waaw man man est-ce yooyu sax am na man yooyu gëmuma ko. bu wér te woor waaw mais xam nga lu ma la bëgg wax sëñ Adi. mais ñan ñoo dëkk Sénégal te xamuñu ko tudd Fatou wala ko tudd Farem Marème wala ko tudd Amine. mais la ñuy joxe tur. ah naka la ñuy joxe tur yow naka xam nga boo ko nee ku tudd Fatou wala Marème. waaw. day nekk kuy xalaat Fatou ban Fatou lu ma sa xam. mën na xam Fatou moom tamit sax bokkuñu kër. waaw mais boo ko nee ki nga bokkal kër. Hmm. te mu tudd Astu Gueye. waaw wala mu tudd Ndey Faatu Nangam. ah loolu wala mu tudd Assane Nangam. ah loolu de yéeme na moom. mais xam nga boo ko waxee loolu ci boppam dana xam ni Assane bi nekk ca kër ga ngay wax wala Ndey Faatu bi nekk ca kër ga yow sa seeti yooyu lay génne. dama lay wax loolu mu leer nañ. seeti lu leer nañ. bu leer nañ. wala nga ne ko ki nga bokkal place. dama lay wax mu leer nañ wala mu wan la kanam gu leer nañ. ci seetu bi ci seetu bi. waaw mais justement allah ji xam nga affaire bu seetu boobu nee nga ay jinne mhm. nga topp ko. keroog yaa ngi doo wax ci reportage bi ne seetu boobu doo ko faral di génne. déedéet du génn bëriwul lu ma koy génne sax xam lu tax du ma koy génne. waaw maanaam ci anam maanaam anam yi lay seetloowee nit ñi ci bëri li lay seetloowee. Mm. dafay yomb yomb goo xamante ni. Mm. pour génne seet bi ko aaju. waaye bu ñu indee malaat boo xamante ni dañ koo teg ci taxi. Mm. gaare taxi bi. wala ñu indi ko ci oto gaare ko. mu jagadi lool fekk nitu guddee ko jàpp. bu njëkk see seetu bi laay génne moon ma kanamu kan la. kanamu nitu guddi bi waaw da nga leen di wan ñoom kanamu nitu guddi bi buñ bëggee kay moo leen kanamu nitu guddi bi waaw léegi euh, <laughs> mais tur bi la mel leen diw mais mais mais moo ko jàpp kanam ci seetu bi da koy wan kanamu kanam ki ko jàpp waaw kanamu ki ko jàpp mais nit ki mën na feebar te yooyu jàpp ko aussi <laughs> soxna si maanaam euh. yàlla bu la yàlla may soxla boo waree dem ci sëriñ amin amin ya hmm? rabbal alamin ku ne sëriñ amul hmm. da caa jaaragul. Mm. mais est-ce que ku ne sëriñ. ñaar la de. ku ne amul. Mm. daf cee demagul. dëgg la ku ne gëwuma sëriñ. Mm. moo la dàq dem ci sëriñ. mais est que sëriñ yëpp ñooy nekk seetkat. déedéet. parce que dafa am ñenn ñoo xamante ne seen seet dañ ciy boole ay di joxe ay sunguf ak di joxe ay kii ak yooyu est-ce que yooyu jaxasewuñu lu ñu bokkul wu nit ki nga nekk seetkat kese wu nga nekk sëriñ kese ak sëriñ bokkul ak faj bokkul am nañu mën nañoo pétaaw. Mm. te mënuñu faj te mënuñoo liggéey duñu faj. Mm. am ñoo xam mën nañoo liggéey te duñu ci seet. Mm. ci lu leer am na. gis seetu yi mu wax man. am naa benn bakkan tudde naa ko doom ci yooyu la daan dox. ci seetu yi ngi du ak ak ndox. ak téere. ak kurus. Euh, euh, euh, jaaro jaaro. jaaro la loon. jaaro ak xisa. daan ci seet. boo xamante ne xaalis lañ koy defaree. mais xaalis bi ngal piir lay doon. waaye du ñëpp ñëpp ñoo mën a seet mën a liggéey mën a faj déedéet faaw mu rax ki mën a gisaane dëgg ci gisaane lay yem ki mën a pitaaw ci pitaawe lay yem am na ñoo xam ne dañuy xam ne dañuy seet buñ la nee jàkk te ngay malaat mën na yox lala la dal waaye duñ la mën a faj dafa bari ay catégorie mm. boo bëggee mboolee lépp nag bëgg koo man mm. am na lu ci rax waaw alaaji mais yow catégorie yëpp mën ko yow yow fu mu ne nii aajowuloon may invité kenn yow ba thème bi commencé ba léegi wan ah, nga ne ma nga seetkat nga te façon seetkat bu ne mën nga ko du ma seetkat du ma euh, sëñ <laughs> da ngeen gudd tànk gis lu ne. dëgg la la ñëw sax ma xam-xam dafa bokk ci dox. Mm. dafa bokk ci gëstu. expérience. waaw expérience yàgg tamit. dafa bokk ci gëstu. ki la ëpp xam-xam mooy ki la gën a yàgg. tëgg la ki la njëkk a dox. dëgg la te sam papa boo ko xoolee. expérience xam ne yàgg naa yàgg naa teew. yow ma ne ba yow booba bagage la ah. bàyyi ba sëñ Hadi waxtu wi dab nañu. Mm. macha allah waxtu wi dab nañu. Mm. année lan ngay tàggoo askan wi. waaw li may tàggoo rek. mooy damay wax li Serigne Touba waxoon. ni fi ma jëleeg taalibe mm. su ma fa fekkoon lu gën taalibe mm. ma ba fak taalibe te indi loolu dëgg na kon nañu fexee sax ci ak taalibe mm. taalibe nag murit kese moomu ko muy jullit bépp ku nekk na jéem a sax ci ak taalibe taalibe mooy yaatu laa biir am xol bu rafet te kenn ku ci nekk la mu yéene boppam na ko yéene moromam bu ñu bëggee senegal gi jàmm yàgg fi dëgg la kenn ku ci nekk la nga bëgg na nga ko bëgg sa na ko bëgg la sa morom li Serigne Saliou doon wax naan loo bañ ñu def la ko fexeel bu ko def nit ñi. dëgg la su dee bañ nga ñu def la ko. dëgg la kon yàlla nañu yàlla saxaal ci ak taalibe. amiin amiin yaa rabbal euh, di ñaan yàlla mu defal ñu saxaaratul daare nii. amiin amiin amiin. boole ñoog Seex Bamba fil jiwaani. amiin amiin bu ànd ak jàmm ju baree bari. amiin Sénégal gi nag. Mm. jàmm rek a fi am. dëgg la ku ko nar taal bu amul sens tàkk. dëgg la jàmm rek a fi am. yàlla na yàlla guddal fan yëpp amiin amiin si la may ñëpp wér may ñëpp jàmm di gërëm sama benn euh, wasila ci mbir mi di sama kilifa di sëñ jonn mm. di gërëm tamit euh, sama waajur mm. di gërëm sama wasila mm. di sëñ Abdou Mbacke bu sëñ ma Mandoumbe borom daaru xuddoos ak soxna yi di gërëm soxna yëpp ah. di gërëm sama gaay yi ma àndal ah. <laughs> waaw parce que ñu ngi toog ñu ngi toog waaw après nga présenté leen àllaaji incha allah <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ xaar euh, sama papa ji nag yàlla fi yàgg loolu tëwee amin amin amin ya rabbal alamin amin si la kontaan nañu euh, lool trop uh-huh. ci ni mu toog ni mu waxee ndax uh-huh. euh, foofu mu bokk uh-huh. ca Kajoor xam nga déggeen yal yàlla musul ci dokkat bu dul wax amin amin amin alaaji waaye lim mu wax lépp buy mu soog continuer woon nga xam dëgg la ñi mënul daal li war. dëgg la dañoo war a toog. dëgg la te bàyyi ñii man. dëgg la loolu nag amatul. dëgg moo tax làmba ji tas. ji xam nga suñu fi yàlla bàyyeeg jàmm ak salaam semaine prochaine fan lañ jëm ci ban tem mm-hmm. xala. ñiñ ko jiiñ bëri na ça veut dire. Mm-hmm. jigéen ñi ñu ngi koy def. Mm-hmm. ci pour bañ wujj ñeneen ñi ñu ngi koy bañ ñu ngi maanaam ñiy jëfandikoo xala. ak ñiy mbubboo xala. déggoo ba de. maa la dégg. waaw jë xala. Eh, eh, est-ce que am na waaw xala est que am na. ñi koy jëfandikoo muy góor muy jigéen lu tax ak ñi koy mbubboo ndax léeg nga gis kenn koo xam ne dafa mbubboo xala fekk ne leneen la alaaji dégg nga wax ji. bu baax laasana dégg ngeen tem bi waaw xala daal. ah waaw xalaat tëleeg façon yooyu rek. xala daal waaw xala ndax am na. maanaam aw feem aw feem feem nga indi rek. waaw waaw feem <laughs> Euh, maa ngi sargal euh, Aminata Tall. Uh-huh. Euh, sunu doom ndeysaan ji fi dikkoon ngir guddi Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci jàmm yàlla na ko yàlla teeru bu baax. amiin amiin ak sunu benn jarbaat bu nu sopp lool muy jarbaat ci Alaaji Matar Seck bu Nguraan. ndeysaan ñu dox Aram Kebe. ndeysaan macha lool nag. ndeysaan Fadlaay Kena. ñu di ko gërëm ajaratu Awa Gaye Gaye moom soxna Fallou Cheikh Ibrahima du ma ko dul fàtte mukk. macha day sama lépp. di ñaal nag bu baax it Xadi Fall waaye di gërëm nag. kinne loo ndeysaan sa mbokk bis ngeen nga xam ni tubaarkàlla mbokk dafa yaatu alhamdulilah euh, Serif Dia hmm. di ko ñaanal bu baax ak nag waa kër sëriñ Saalibu Njoon ab aawom euh, tubaarkàlla di ndey Anta Ñang hmm. ak Yaasin mi nga xam ne mooy ñaareelam ak sama doom ji nag Euh, mooy nekk moom Alaaji Amat Ba seen jur ko. macha di sama doom tubarkalla yàlla defal leen jàmm. macha allah ak Mamadou Diassé. Mm. Euh, mi ngi may dégg ak mm. Pape Diassé. alhamdulilah ak nag sunu sëriñ. Mm. sunu xarit ma ak yow. macha allah euh, ñu dox Seex. Sidiya jaabi jaabi di ko gërëm baax ak soxnaam ajaratu Awa Diop États-Unis sa xarit Awa Diop député hmm. sama jigéen kon tey nii nga def Touré tey daal tey nii nga def noonu laa def tey avisé communiqué nga indi ah, ñett de laa fi dugg <laughs> <laughs> ñett fa tabaarakallah macha allah loo def neex na ma loo def neex na ma delluwaat rek di ziyaaret kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yan na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallah macha allah alaaji semaine prochaine ni ma la ko waxee xala ndax am na est-ce que am na est-ce que amul ñu ko mbubboo jigéen ñi koy jëfandikoo pour lan góor ñi nga xam ne nee nañ dañ leen takk xala lu ci pexe xala de la indi lu rëy ànd ak lu ci mën a ne nag sañ naa remercier Alaaji sama doom bi nga xam ne démb ba léegi mooy peinture mbubb yi di maam Khoudia Thioune mu faatu géwél ah chéri as yaay bale jàmm nekk si fa nag ah. ah. ko jur man sa sëta sab sët la waaw ndax ndax waaw sama sët la waaw ah, sa sëta nag mm. euh, maa ko maye woon dëgg la waaw mbubb yi dénk ko xanaa ah Alaaji da sol peinture du ko sol am naa koy sol peinture <laughs> Alaaji di ko remercier bu baax di fàttali rek dama gi ci 503 77 503 33 71 77 503 33 71 kon chéri As Ndiaye bala jàmm maam ko juccu maa ngi koy remercier bu baax nekk Scat Urbam en face mosquée bi di leen jox rendez-vous lundi ci kàttanu yàlla ci xala spécial xala yal na yàlla may fekke ak tal ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Alaaji xam naa ne am nga xam-xam ci xalaat lool lool lool lool waaye ba altine <laughs> jërë ngeen jëf <laughs>